الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله المتعمل المتعمل في حال الأمة الإسلامية يجد أنها تمر في هذا الزمان بجهل مطبق في شتى المجالات حتى وصل هذا الجهل إلى حد الجهل بأمور التعبدية التي يفترض في المسلم أن يتقنها ويعرفها حتى يؤديه وفق أمر الله تعالى وأنا أكون مجاوز إن قلت أن هذا الجهل سبب في نسيان كثير من أحكام الشريعة عند كثير من الناس وفي هذه الحالة تعد نفقا مظلما في جبين الأمة الإسلامية وليس هناك من مخرج سوى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الشريعة جميعا واجبها وحرامها ومسنونها ومكروهها ومباهها حتى يتحقق للمسلمين الفوز بدرجة العلم والتعلم والعمل ومما لاحظنا التفريط بشريعة الأدهية في كثير من البلدان الإسلامية مع أنها من شعائر المهمة في ديننا الإسلامية الحنيف لقوله تعالى ذلك ومن يؤذم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko mbokk yi ku seetlu tey xeet wi nga xam ne mooy xeetu lislaam di nga ko gis muy traversé di romb jamono joo xam ne dafa fees dell ak réer tey ku càmbar mbiru jullit yi ku am settantal ku jàng tuuti di nga gis jullit ñi ñoo ngi romb ay waame ay montagne ay xur ci réer réer goo xam ne dafa làmb dafa làq mboolem domaine yi foo laal rek foofu la jullit yi gën a réere foo laal mboolem wàll yi mbir mi dem ba jullit yi xamatuñu nu ñuy jaamoo yàlla ndax réer dañuy làmbatu rek inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ñun dey fekk nañ suñuy ndey ak suñuy baay nii lañ ko doon defee ñu defee ko noonu tey foo jël ci wàllu yëpp jullit ñi dañuy làmbatu billahi allazi la ilaha illa huwa suñu julli woon juma ba sëlmal ñu jël micro bi ñu ne kaay leen raa leen kenn par kenn wallahi li ma wax day nekk dëgg dañuy làmbatu kenn deful ngir xam waaw ajjuma ñaari ràkka la rek damay taxaw ruko bu ñu sëlmalee ma sëlmal lu ciy farata non xaw ma ko de lu ciy sunna xaw ma ko noonu la ci wàllu jaamu yàlla yépp li ma ndaw si waxoon gis naa bu nit ñuy julli bu ñu toogee dañuy yëngal seen baaraam ma ne ko déet dafa am lu ñuy wax mu ne ma déet man de dama yëngal rek comme nit ñi ni ñuy yëngalee ñu ëpp ci ñun dañuy yëngal boo leen ne looy wax ñu ne déet man dama yëngal rek noonu lañ bi ñu rombee mbir mi di dem di dem jaamu yàlla yi ñu yàlla di sant xamuñ ci dara xamuñu farata xamuñu sunna xamuñu mustaab xamuñu manduub xamuñu makruux xamuñu xaraam dañuy dajalay dem rek ba ci jaamu yàlla bu réy bi ñu jëm muy tabaski noonu la ñu réeree ay atem fi kasirin min al buldaan al islamiya al yawm tey lu bari ci xeet ci dëkk islaam yi boo leen ne tabaski rek ñu ne am naa xar bu jour bi jotee ñu rendi jeex na yow mbaa tabaski nga waaw xar yi cher na de reyul rek loolu rek lañ xam ci tabaski rey naa xar cent mille laa ko jëndee deux cent mille tabaski naa waa kër gi kay kontaan nañ soxna si kontaan nañ xale yi kontaan nañ loolu mooy sunu ndeysaan loolu rek xamuñu dara tabaski xamuñu lan moo tax mu jóg xamuñu ki koy def lan moo tax mu koy def ban jaamu yàlla la lan moo ko waral dañuy làmbatu rek mbokk yi jullit yi te mu nekk jaamu yàlla bu rëy ku mu doon ci ñun bu yeggee bu waxtu bi jotee mu war a am ay taxaw seetlu taxaw seetlu yu toll ne mbir mi ki ko doon def fan la ko jëlee kan moo ko sant lan moo tax mu santoon ko ko ak mbir mi lan moo ko waral mbir mi lan moo ko waral kan moo ko santaane kan la ko santoon lan moo tax su jotee lépp war nañu xalaat loolu mbokk jullit yi tey jullit yu bare bare bari wa bi nazri ila ma warada fi shari'ati al-islamiyya yazharu lana azamati ad-durus al-mustafada min shari'ati al- min shi'a'iri al-udhiya fa hiya min as-sunan al-ma'mura biha shar'an tey ku xool li rot ci ay texte ci l'islam dana feeñ ci ñun bu wér ay leçon yu ñuy tiire ay njàng yu ñuy jëlee ci bisub tabaski ay santaane yu ci am sunu borom subhanahu wa ta'ala santaane ko waaye xoolal tey bidaa ak réer dem na ba nëbbu tabaski dootuñu am tiyaaba ci tabaski da ngay gis ku je ku denc béjjén yi kee denc geen gi kee denc put gi kee tànk ci deret gi denc tey sunu tabaski noonu la au lieu mu nekk jaamu yàlla dafa mujj a nekk ab xërëm billahi boo jëlee béjjénu tabaski billahi boo jëlee ci deretu tabaski billahi deru tabaski boo ci jëlee billahi boo dencee weyi billahi boo ko jaxaseeg nefere yi wallahi boo ko sangoo ndeysaan tabaski tey lool la au lieu mu nekk jaamu yàlla déedéet tey bidaa la nekk ak shirk ak shirk bokkaale la nekk ak bidaa kenn amatu ci tiyaaba mais bidaa la ak shirk barki démb laa dégg benn waay ci télévision bi mu ne waa Sénégal dañoo réere tabaski day wax yan njëriñ ñoo nekk ci tabaski la hawla wala quwata illa billah ku mel noonu na ku ko déglu xam nga lay mujj am xërëm xërëm nga jaamu jaamu woo yàlla tabaski xoolal kiñ ko santoon lan la gént gis te xam ngeen gént yonent yi dëgg la ru'yatul anbiya xaq yonent nuroowul ak nun yonent yi lu nu gént rek dëgg la baay ibrahima gént yaa bunaya inni ara fi lmanaami anni azbahuka fanzur maza tara doom maa gént borom bi subhanahu wa taala jox ma ndigal naaral tëral rendi xool ngeen fu mu bàyyee ko ci tëral sa doom benn doom bu góor kese benn doom nga am téeméeri at am benn doom yàlla ne la rey ko imtihaan nattu ibtilaa test yàlla di xool Ibrahima fan la toll mu woo doom ji doom ji tamit fekk am na tabax am na fondement ci ngëm yàlla fuñ ko tabax moo tax jaamu yàlla gi du lu ñuy def nii rek dafa am lu ñu laaj Ibrahima dafa tabax xale bi ba keroog ba mu ko nee yàlla daf ma jox ndigal pour ma rey la mu ne ko yaa abatif alma tu'mar sa tajiduni insha allah min assabirin wallahi depuis onze heures normaluma ba tey ku ngand mooma woo ponkal ci daan ñu daan def lu bon ci réew mi ñu génn dem bitim réew ñu làq leen fa waa ji ne ma dama xam ne ci lu bon laa nekk mais sama ndey ak sama baay ñooy responsable yi deux heures de temps laa wax ak moom téléphone moo tax doom dañ koy préparer dañ koy defar Ibrahima dafa préparer doom ji Ibrahima dafa préparer doom ji waa ji li ma wax depuis suba ma xam ne nit war na jël responsabilité ci doomam mais am doom rek bàyyi ko mu nekk ci li ko neex ba xëy dugg ci giraawaali goo xam ne day alak monde bi loolu loolu moo dal waa jooju responsable yi am na keneen ku mag koo xam ne mi ngi deewee ci kaso bii nga xam ne mu ngi mooy mooy mooy rëbës lan la bi mu feebaree nit ñi di ko seeti pavillon spécial fi ñuy denc ñi feebar ñi tëj lan la doon wax sama ndey ak sama baay ñooy responsable ci lii ma nekk foo ñu dellu si xel yi xam ne dañu war a tabaxaat suñu kër yi Sénégal gi mi ngi raam di jëm foo xam ne bu leen yaakaar ne changé ay gouvernement moo koy defar dañuy sonn yàgg naa taxaw ci minbar bii ci bés bii ci waxtu wi naan leen mi mbir mi du ay nit yu ñuy changé inna allah laa yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla du changé ay nit lu dul ñoom ñooy taxaw pour changé seen bopp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام مثل التعبد المطلق إبراهيم أنغني دي إكزيكيتي جامو يالا جامو يالا بولا كو سانتي دنگ كوي ديف دو خول نيخنا لا دو خول نقارينا لا واي خولال ñun Ibrahima lan lañ ko sant reyal sa doom ñun lu gën a tuuti loolu lan lañu sant mënuñu ko def rendil sa doom Ibrahima génn ak paakam dem ba ca Mina ca désert montagne kenn digganteem ak boromam ak yàlla mu tëral doom ji loolu mooy objectifu tabaski yow liñ la sant mooy waxuñu sa doom mais ci sa alal sa ñaq ñu ne la génnal damal nga uti gàtt nga rey ko ngir yàlla ndax sa digganteeg sa borom tuural deret ngir yàlla ngir yàlla nga ñëw di ci tiitaru nga ñëw di ci ut puukare di ci ut ku la tagg di ci ut ku la gis balaa ngay xam lool rek ku jënd xaru tabaski doo ko denc mukk sa ron lal fu ñuy denc xaru tabaski ci mbedd mi rek mbedd mi ki ci gën a doy waar nag mooy ki ci gën a rëy kuy ci mbedd mi la koy samp sang ba mu set jënd ngooñ teg léeg-léeg sax mu doxantoo ko di ko won nit ñi yàlla génn na ci lan yanaala allah luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla nee na bugguma xar bugguma deret ji bugguma yàpp bi bugguma béjjën yi bugguma yeel yi bugguma ci dara xam nga lan laa bëgg ci xar mi ragal yàlla gi nekk ci sa xol nga fexe ba mu nekk ci ragal yàlla bi bidaa yi ma wax na ci xaru tabaski xaru tabaski kenn du ko jàppal bisu tabaski kenn du ko jàppal buñ koy rendi ngay gis fi ponkal mu jël satala di jàppal xar mi di jàpp raxas tànk yi di ko sëlëm raxas gémmiñ gi raxas bakkan yi subhanallah ay waay ñun ñoo réer waay buñ koy rendi nga gis borom kër gi yor paaka bi taxaw jabar ji jàpp ci ndigli taaw bi topp ci ñu jëm mbedd ma rang def benn chaîne ñu ne yowmal qiyaam ñoom ñii ñëpp dañuy yéeg ci xar mi xar mi jéggi siraat xanaa xar mi ñoom ñëpp day pëttax ak ñoom biir safara xar ñoom ñëpp daf leen attan lu ko waral mooy ay bidaa ay shirk Sénégal mënuñu jaamu yàlla kese kese dañoo lànk la loolu moom ci suñu deret la nekk jaamu yàlla kese kese kese mukk foog ñu dugal ci bidaa wala shirk wala ñu dugal ci lu kenn xamul bu ñu paree di tànk ci deret ji di def ci jëy yi deret deret sobe la jàngeen ci lislaam ne deret bu la taqee lu toll na juróomi dërëm sa njàpp yàqu na ki rendi xar mi ba pare njàppam yàqu na day jàppiwaat parce que li ko taq ëpp na juróomi dërëm deret sobe la xar suñ ko rendee ba pare lépp lu ci nekk buñ ko wulliwul sobe la nga jël béjjën yi denc jël wey yi denc jël genn gi denc jël res bi denc jël deret ji denc wallahi loolu yëpp nga denc dara du ci faj loo ci yaakaar ne da lay faj ay bàkkaar kese ngay jël jëlal baay Ibrahima misaal jaamu yàlla kese ba mu xëccee xale bi ba wax ak moom xam ne xale bi am na imaan nangu na ndigalal yàlla yàlla mu ne fa lamma aslama wa tallahu lil jabin ba ñu jébbaloo ñoom ñaar Ibrahima nangu di def ndogalal yàlla bii yàlla sant ko xale bi nangu ñu def li yàlla santaane ci moom bàyyi bu dee yàllaa ko sant defal ñoom ñaar ñëpp nangu nañ yàlla xam ne ñii dëggu nañ yàlla xam ne ne ñii làmbatuwuñ yàlla xam ne ne ñii duñu ay tappalekat ñii duñu ay forkat ñii duñu ay taxankatu guddi yàlla woo leen ñoom ñaar ne Ibrahima dëggal nga gént ga bis ni ki tey xale bi dinaa ko jote wa fadaynaahu bi zabhin azim yàlla daal di koy jote kuy mu rëy kur mu bàyyi ko aljanna war faa delluwaat loolu mooy jaamu yàlla ci tabaski xoolal li nga mën nga waaxu ba gis li nga tollool nga jël xam ne santaane yàlla la nga def li la ci yàlla sant amul puukare amul gis leen ma amul tànku njëkke amul tànku diw amul nangam nga def ngir yàlla dégg nga sax ñu ne la der bi boo ko jaayee amoo tabaski saraxe rek nga ciy def saraxe lii ngénte lii atte ngénte mooy atte tabaski kulu wa tasaddaqu wa daxiru lekk leen saraxe leen denc leen loolu mooy atte ngénte loolu mooy atte tabaski yàlla na yàlla may nu màngu ko di fàttaliwaat ne mbokk jullit yi bisu alxamis mooy bisu arafat te yowmul arafa ca subaska moo war a nekk tabaski te yowmul arafa dan koo war a woor li gayril xaaj képp ku ajiwul feebaroo dara jotu la nga nekk jullit boo bëggee tiyaaba bisu arafaa ngi nii ñu ñëw suñu kanam soo ko mënee woor ko suñu borom subhanahu wa taala sant diggée na ci ay tiyaaba yenent bi leeral na yool yi ci nekk allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ala dinika maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله